waa suba nag làmb daa am fii lamb ju mag dox ci ñaari mbër yoo xam ne ay bërekat lañu Jamso Jamagan la dëkk ki nga xam ne mooy Pape Thiam nekk école de Papa Kane Pape Thiam numéro bi nag ñu delloo ko Modou mbay njukkal tudde ko ko Bamba fay def loolu muy loo xam ne ñun ñu yor micro di wax yëpp kontaan nañ ci ngay suñu frère di liggéey ci lamb lu am solo ñu delloo la njukkal ci làmb defe naa mérite la mais du sens sax mais mérite la maa ngi lay ziare. chance la rek. dañoo am kon chance ak dama ñu delloo ma ko ñu delloo la ko parce que ñun bari nañu ci làmb ji te ñun ñëpp ndaw ñëpp ñu ngi liggéey ku ci nekk yaa ngi liggéey liggéey bu solo liggéey boo xamante ne ni tey sénégalais yi bëgg nañ ko sénégalais yi ñu ngi koy suivre muy man di yow di waa Sénégal di waa Dakar ak ñëpp ñu ñëpp ay ndaw lañ yoo xamante ne ñu ngi liggéey liggéey boo xam sénégalais yi bëgg nañ ko kon bu ñu ci génnee sargal ñu ci dañuy sant yàlla di leen ko delloo di leen ko njëkk a delloo yéen ñi nga xam ne yéen lañ bokkal métier bi di sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant sunuy wayjur di gërëm bu baax sunu papa age Bécaye Mbaye mi nga xamante moom moo ñu génnee ba tax nit ñi xam ñu moom moo ñu génne ba tax ñu mel ni ñu mel di ko jaajëfal di ñaanal sunu yaay mu yàgg fi mais suba bis la boo xamante ne bisu jeunesse bi la xale lañ ko tuddee ay xale ñoo koy bëre te xale moo ko tëgg xam nga ñu ci woo jeunesse Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñëw jàppale ñu si bi parce que moom la ñu am nit amul lu dul bésam Bamba Faye choisir nañu pour delloo ñu njukkal ci bésam ñun tamit lépp loo xamante ne mun nañ ko ngir taaral bis bi dinañ ko def and ak suñuy nit ànd ak suñuy am di jàmm incha allah ñëw ci bis bi màggal làmb ji bu baax baax. mu mel ni bii mooy deuxième fois ndax ren groupe baax dañ leen tudde drapeau ñu ñu jëlaat drapeau ba delloo si njukkal mu mel ni Modou daal dafa mel ni mu ngi bay waaram tamit ci làmb ji. waaw ci at mi bii mooy deuxième fois loolu day am groupe baax loolu ñoom biñ ko ñoom ñoo ko njëkk a def li waral ñu njëkk def liggéey la boo xamante ne nii man ak ñoom ñoo ko bokk liggéey la boo xamante ñoom ñoo ci nekk man ma ñëw fekk si leen si ñu nekk ay mag yu baax yaatal ñu ci liggéey bi yàlla sunu borom dogal sa papa sañ Modou ñaa tuddal leen làmb ñu ne dañ koy jël delloo ci njukkal Modou mbay ndax liggéeyam bi muy liggéey ci wàllu làmb loolu seen baax la rek ndax ñoom ñoo njëkkee lu baax comprendre nga tey Bamba Faye bu ñëwaatee ci même année bi defaat loolu day wane ni ay xale lañu lii sas la rek nekkul lenn loo xamante ne nii mën na am nu muy def non non sas la lii daf ñu wan daf ñuy wan ni ñun dañoo war a liggéey ay xale ñu xale bu su nekkee dafa am na at moo at âge boo xam boo si tollee da ngay liggéey te comme que ñu ngi liggéey nag ba yàlla dogal ba ñenn ci ay nit di ko gis dañ ciy sant yàlla defaguñ dara dañuy ñaan yàlla def lu raw lu suñu ay wayjur def incha allah. tamit ban taxawaay la Modou war a am tey à travers le Sénégalais parce que tamit li ngay def macha nit ñi apprécier nañ ko. estimé nañ ko ba pare ñu ngi la ciy delloo njukkal à chaque instant tamit loolu ban taxawaay la Modou Mbaye war am tey jëmale ko ci sénégalais gën a fonk senegal gën a xam gën a xam cëru senegal ndax ñu Sénégal rek la ñu am lépp lu ñu am lépp lu ñu am ñi ngi ñaan yàlla mu mayee ñu ko ci sunu biir réew ñu amee ko fii bokk ko ak sunu waa réew bokk ko ak sunu ay moroom mais taxawaay bi ñu war a am ci mooy gën a fonk nit ñi gën a xam seen gën a xam ñoom ñooy ñan gën leen a jox gëdd bi nga xamante ne ñoom la am nit ñi moo kenn moomu leen te suñu gisee Babacar rek ba bëgg ko rek c'est parce que Babacar moo liggéey liggéey bu rafet suñu gisee buur géwél ba bëgg ko rek c'est parce que buur moo liggéey liggéey bu rafet loolu la ñu gis su ñun ba tax ñu bëgguñu dañuy ñaan yàlla mu gën ñu kàttanal ñu gën a am kàttanu di leen bégal di leen di leen liggéeyal ndax ñoom rek ñoo ñu tax ñu toog fi di ñaan yàlla mu may ñu kàttan ba incha allah bu subaa yàlla suñu borom may ñu ci may ñu ci xéwal bu baax a baax incha allah. Modou lu muy wax suba journaliste si ak ñëpp lan la leen Modou di wax. na ñëpp teel a ñëw ñu àndandoo ñu ñëw ci stade bi xam naa ne sax ñu ñëw toog toog sama kër ñu àndandoo stade day metti parce que information bi da leen di raw fii mais ñu dajee stade kon ñun ñëpp incha allah maa ngi woo reporter yëpp ñu ñëw ñu jàpp si bis bi ndax moom rek la ñu am suñu bis la te bisu reporter yi la puisque pas yi xewi nañu booy yi ñoo xew. kon boo yëpp ñu leen si woo mais di kontaan si baa Babacar di la ñaanal yàlla defal la jàmm parce que yow tamit yaa ngi liggéey liggéey boo xamante ne nii wax yàlla Sénégal yëpp gis ko yaa ngi liggéey liggéey xamante ne nii tey man sax da nga maa noppal barki Mohamed am na lu bëri loo xamante ne ni bi bi fi télé yi nekkee rek ñun ñoo ko doon def mais léegi defatuñ ko parce que yaa ngi koy liggéey te bu ñu gisee suñu morom di def loolu dañ koy apprécier yaa ngi liggéey liggéey bu rafet yàlla na borom kattanal la yoo tamit ba ñu dem ba yéen lay tuddee drapeau ci arène nationale ba mu doon drapeau combat roi des arènes ñu ngi la koy ñaanal ci barke yonent bi di ko ñaanal sunu morom yëpp di ñaan yàlla jàmm Sénégal jàmm sax ci réew mi lamb jël pay ci lépp ñu ngi koy ñaan. yow suñu royukaay nga borom xol bu nice nga xam mooy ba ñun suñu problème mooy bu ñu gisee ku mel ni yow dañ ko def royukaay même bu ñu la magee ci at sax mais dañ lay roy parce que sa liggéey rafet na macha allah yàlla na yàlla kattan la barke yonent bi sallallahu alayhi wa ak sa frère yi nga toogal nii. ñoom Pape Modou voilà équipe baa ngi nii Papa Ndiaye waaw frère yaa ngi nii voilà. <laughs> borom voilà moom la. moo géré affaire yi moom mooy band bi waaw noonu la demee bëggee nañ Babacar jërëjëf merci jaajëf.